Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée. Hein. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information. Et box sénégalais fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal, Rokhroukhad, Gorgorad, Niglen Didia Diofel. Nous sommes également à l'hôpital et à l'hôpital de février. Nous sommes en cette bof, nous sommes Nous sommes aussi erreur judiciaire, nous sommes en train de faire yobu. Nous sommes en train de faire des lois de l'enseigne, nous sommes en train de faire des lois est l'enseigne, nous sommes en On avance ensemble dans la magie de e-Sport TV, l'actualité en continu. l'actualité ñu fas yéene xam donc équipe nationale du Sénégal wax ci nag xam nga donc Kalidou Koulibaly ak Edouard Ndiol ko momi do gore mel ni est-ce que li ñu dem fa xam donc ci Arabie Saoudite day tax dootuñu ñu équipe nationale du Sénégal li ma leen wax rek ñun say ñu wax rek dañ ci def ab jàngat bu leer jox leen ay détails ak lepp jox leen ci gis-gis la laataa ñuy wax parce que il faut déjà analyser avant de dire quoi que ce soit mais gars yi di leen jaajëfal di leen wax également di leen balu ak di leen bal ak di wax suñu borom yàlla nañ defal at gi li ci nekk eh, di dess ci ñop ñu fekkee ko tal ko ñu gudd fan wéyul ak wér le nak ak mën-mën ku nekk looy yóotu rek mu nekk sa xol te mu gën ci yow yàlla nañu suñu suñu borom defal ko yàlla na jàmm yàgg Sénégal li ñu bëgg ci Sénégal mu nekk dëgg yàlla na dëgg gën a fës ci Sénégal yàlla na jàmm sax si Sénégal te Sénégal yàlla na gën moom boppam ñu xam ne aussi réew la boo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom du keneen ko moom lépp lu ñu si ñaar yaan rek suñu borom defal ñu gars yi nag insolite bi ma leen donc meilleur <laughs> meilleur ah, nga xam mooy donc championnat fo Bénin li si gil gars yi liir ñu bind <laughs> te fédération ñoo joxe trophée boobu lu liir leen li ñu bind gars yi bu baax a baax baax a baax trophée bi nag wa fédération ñoko jox en ah, fédération bu Bénin ñoko ko joxe xool leen bind <laughs> pendant ce également joyeux anniversaire à Laporta le président donc du FC Barcelone di fête anniversaire am ah, moom ak ki nga xam ne donc Pérez actuellement les présidents yi nga ils ont marqué leur histoire ak trophée ñu jël mais également avec grandeur yi ñuy wone sen club ki nga Gay ne Kim Min Jae ah, donc mom officiellement donc joueur de euh, Bayern Munich li des nag mu ñëw parce que nee naa dafa nek li nga xam pour donc euh, service militaire de dëkkam mais ba 2028 lay signé donc il va quitter le Napoli pour aller du côté donc du Bayern Munich pendant ce temps également Hernandez wa Bayern jox nañ ko aval mu dem wara def visite médicale euh, semaine bi ni tay wala ëllëg inshallah bi du côté donc du Paris Saint-Germain. li des rek mooy ñu xol détail li nga xam moy njëg bi ñu ci wax ñaata lañ koy daal di fayee ñaat ci ñaat ban diir lañ koy fayee. Qui nag di Harry Kane ah yi Harry Kane moom nag ah, day euh, wa Bayern Munich def nañ ko proposition bu 80 millions gannaaw bi ñu proposition bu 60 millions dal di koy euh, ñi di Tottenham dal di koy bañ fi ni defal nañ benen proposition ki nga xam donc mooy donc ki di Bayern Munich pour Harry Kane Harry Kane mi nga xam nak nag yi fi ni donc momit bokku na ci favori yi nga xam attaquant la du côté du Bayern Munich ki nga xam moy Tita Tito plutôt Martinho ah, donc xam ngeen ko Tito Martinho fi ni nak nii nag nek entraîneur bu euh, ki di donc Lionel Messi du côté de des États-Unis ah, donc Inter Miami il se retrouve ah Lionel Messi

ñoom comme bu ñoo bokk koñ daal da ngay dem ci kër gi rek dugg ci kër gi pendant ce ki xam ne moom mooy moom daal fi mu ne nii waa Manchester United am nañ yaakaar finaliser ko ci semaine bii nii incha allah rabi nga xam ne donc ñëwam du côté du club que euh, waxtaan yi commencé na euh, xaw nañu commencé am déggoo seen diggante Mason Greenwood nag Mason Greenwood waa Manchester United dañ ñëw nañ koy jaay kii di Ten Hag nee na euh, nangu bu bëggul ñu jaay ko peut-être mën nañ ko aale mais bëggul ñu jaay ko parce que booy bi je le dis gars mais dafa am talent quoi mais erreur mënut a ñàkk surtout moom ci xale moo ko sonal mu pendant ce du côté donc de West Ham West Ham nag gannaaw ñoom d' ñoom dañ ne rek euh, a négocier ah, wu ñoom nag bëriwuñu ay li ñu def ci ay ay ay yooyu mais daal euh, kii nga xam ne mooy donc Madison moom dina am lu leen apporter kii nga xam ne aussi nag mooy donc Edouard ko moom Mirogoré Mendy wax naa leen ko démb lañ ko présenté officiellement donc du côté euh, de Al Ahly moom mi nga xam ne nag. ah signé en 2026 départ Chelsea parce que déjà il doon ci salaire joxuñu ko lol tax na également di ko bon ah, voilà pour am a euh, automatisme ñu am ak gardien ki nga moy donc tamit signé du côté de Al Hilal gis ngeen depuis Barki Demb la contrat mais tax nak la bi di samp est-ce que pour équipe nationale du Sénégal nous avons fait histoire un peu 2018 la Lucie Cissé toogoon une conférence de presse Les ne championnat sont pas des championnats de gars yi niveau de 2018 également ban contexte la ko waxe il faut que ñu am ay fait ñu rappeler bañ koy wax ci contexte bobu non nak pour wane rek un peu c'était peut être que Aliou jamono jooju dafa am yenn joueurs yo xamné aussi ah bëggoon na euh, entre guillemets séparé wu ak ñoom débarrassé wu ci ñom parce que dañu nekkon joueurs yo xamné ne dañ doon dafa gissone ñom ñoom ñooy polluer environnement équipe nationale du Sénégal muy ki xamné xam ne donc kii di euh, Dembaba aussi bokk na ci mooy donc Papis Demba Cissé jamono jooju nga xamné ne dañoo nekkoon joueurs yoo xam dañu doon yàgg di wax ñom seen gis-gis nekk joueurs yo xamné ñom bo len bo ñom lu la ragal wax dañ fay toog joy jamono jooju nak fekk ñom ñu signé ay signé ay booru Chine et tout si c'est profite aussi ne man amna championnat xam ne joueurs yooyu du ma leen woo ci sexe baa ngi non. moo aussi ku ci melne Demba Ba Demba Ba équipe nationale gars yi ko doon décrire ne boy bi jikko tubaab la <laughs> quoi entre guillemets mom moom dalay wax li nek ci mom et tout donc son comportement un peu de doon gêné au niveau de l'équipe nationale du Sénégal contexte bobu aussi mën justifier peut-être li tax Aliou jamono jooju voilà ku nekul yene championnat yi mo ngoog et comme je l'ai dit mom ak Papis Demba Cissé Papis Demba Cissé mi nga xamné aussi moom dafa yag wax ne man du ñaan kenn dara lepp mom dama ko mériter et tout mais également mu nekkoon jamono ñoo xam ñoo demone ay Chine ak yooyu ci ñen ñi commencé dem championnat exotique yi gars yi dañ wax y' a aussi eu le cas de Karamboj Karamboj mi nga si gis ngeen ko c'était un des hommes forts de l'équipe nationale du Sénégal man bokk naa si ñu gëmoon Karamboj même dans la continuité amna lu mëna apporter équipe nationale parce que il a jamais déçu Karamboj nak te mu dem coupe du monde te moom mu dem coupe du monde dafa dem genou ñu bëri d' accord nañ ne waru woon dem coupe du monde parce que dafa joggé ci blessure genou Aliou Cissé yóbbu na ko lu bëri amna ñi né waaw dafa doon gedd et tout à la fin parce que lu tax ñu ko et tout Kara génn né loolu amul et tout mais Kara depuis bobu lañ ko gis parce que après mom dafa dem ci yenn championnat yi xam pays pays naar yi dëkk ñaari la dem téw nak ben moment ñew na Nantes pour mëna a ñëw équipe nationale amul mais paradoxe moy gis ngeen 2022 Aliou Cissé jënd joueur yoo xam ne amuñu sax ben temps de jeu même bu fekkee dañu nek championnat bu mag amuñu temps de jeu ma la ñoon top parce que suñu duñu ci liste bi mu indi leen ñu def match yu reuy ku ci mel ne Nampalys Mendy dafa ñëw li nga xamné moy donc li di Coupe d'Afrique def match exceptionnel aussi génération 2018 bi amon nak ki xam mo nekkon Khadim Ndiaye nekkon Guinée di golu nekkon aussi le gardien titulaire de l'équipe nationale du Sénégal donc aujourd'hui buñ ko gisé ci jaar-jaar bobu nak mën nañ jàpp ne Aliou Cissé mën na parce que ngeen récemment ñoom Pape Ousmane Sakho ñu leen di woo et que nekkuñu si yenn championnat yoo xam ne xam nañ leen mooy indiwaat dañu waxoon rek mooy que ne Cissé ci benn contexte dafa am lu mu waxoon tay nag contexte bi xeyna amna lu bëri lu ci changer réalité yi changer né peut-être lool la ñenn dinañ gis né wax waxet la ak yooyu ñeneen gis ne également dafa nekk ci situation bo xamné ne euh, coppiteefu doxalinu championnat yi et tout mago en plus gars yi Arabie Saoudite nekkul championnat bu cuune les gars yi ñokay wax pour di doon exemple man yag na fi wax boo leen ko vidéo yi ma doon def ci CAN bi man leen lutax duñu du ñu yenn cadre yi ñuy wax naan non ah, parce que nekkuñu ci championnat yi man leen Bounedjah nga xam mo nekkoon homme fort bu Algérie 2019 bañuy jël li nga xam mo donc sen Coupe d'Afrique 2019 bo wax na ci man leen ñoñu ay Arabie Saoudite lañ nekk

est-ce que beaucoup coupe d'Afrique par exemple si c'est nous continuer de leen wo parce que moom moo foo xoon ku dem championnat du ma la woo gis ngeen fi Saliou Siski qui s'est sacrifié né mom du dem championnat nari parce que dafa bëgg ñu woo équipe nationale malheureusement demul ah donc moo tax signé wu loon contrat contrat mu tok ba amul club mais tamit Aliou Cissé yóbbu ko coupe du monde ni ñi ngi ni dem Arabie Saoudite est-ce que Aliou Cissé aussi euh, day def ci même continuité même continuité bi ni mu defoon ak ki nga xamne moy donc gaay yi limu leen et tout wala bok day nekk ci benen dynamique parce que comme on dit c'est un entraîneur te nit matul je l'ai dit nit matul mun nga wax leen tay comme on dit les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain maintenant nag ah ku nekk ak sa gis-gis mais li ñu mëna wax rek moy que ne tay pour man équipe nationale du Sénégal pour l'instant pour l'instant ni ci 6 derniers mois yi ñu jëm euh, avant Coupe d'Afrique bi gëwuma mu mu changé équipe bi ñi dinañ leen wo maintenant nag après ci ban logique lay nek ci ban continuité la ñu nekk loolu moo jara laaj par rapport ak situation gars c'était toujours un plaisir de vous servir di djegol dem xam ngeen rek dafa men dem démb séeréer jay jaay xari dafa cherou lool lool lool lool mais di ñaanal ñep jam way leen di laaj way leen di abonné on avance ensemble jaa ngeen